asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan seen sit internet Ngoy TV ñu ngi leen di bëggee di leen siyaare bu baax a baax a baax waaw ginnaaw dem euh, diggante Reug Reug ak Sa ki nga xamante ni moo di Sa Thiès ah CNC jox na ko victoire am ci kaw omarkan Kane Reug léegi léegi lañ jot xibaar bi ñu ne balaa ñoo tëdd il faut ñu partagé ko ak yéen xam xamal leen que ne recours bi nga xamante ne Sa dugaloon na ko. Euh, ne dafa daan Omar Kane Reug ci par quatre appuis euh, recours bi CNG validé na ko kon euh, c'est la première fois defetu Omar Kane Reug ci Sa Thiès moo ko teg mais nag xam naa suba incha allahu rabbi yéen mbokku internet yi suba dinañ ci gën a waxtaan. mu gëna yaatu ndax euh, amna lu bare bare lo xamante nii euh, dañ doon xaar cour bi gën pour ñu siwal ko pour gën ci wax quoi mais lepp ci yar la ak tegin xam nga duñu makki manki ken respect mais sérieusement li xew dem sénégal yépp teg nañ ci seen bët mais en tout cas lepp lu ci mën di doon euh ki nga xamante ni moo di Sathies euh, ndam ci kaw Omar Kane reg ci seen validation de CNC kon loolu lañ mën a jàpp que kon pour le moment euh, Reug Reug ñibbi woon na ak li nga xamante ni moo di victoire am mais CNC de lit moo fi nekkal askan wi moo fi nekkal lamb itam dem nañu euh, xoolaat vidéo yi gis ka ne Reug def na kat appui euh, moom nag bañ na nanguwul ne moom tànk yi loxo bi wul ah professionnel la jaar na épique national mais nag c'est la vie aduna non la xelé nga yaqalu la dara da ngay dem nga entraîner wat préparer wat ñëwaat bokkat ci lam ji dara mënu la fé génné sa sies ndanan la champion la kuy sa bay dubalees kuy sa mag balagay dé lo rek nanan nga waw yow sa tour rek ndanan la kon mention spéciale ñu ngi lay féliciter di la encourager ah nan la la yalla la ndam li jig reg reg itam sérieusement xelew nga débal nga défar wat nga ñëw bokkat ci lam ji ndax dang ci bokk ni ñaan bala gay moy lamb mais rëg rëg moy lamb waaw dem stade bi neex na tout xam nga ñëwal nga wat xam nga benen combat yalla baxna lu yalla dogal nga xamne lool la mais en tout cas pour le moment dal xibar bobu lañ leen bëggon jalale ne Sa Thiès euh, recours bi mu dugaloon ci suba ci londi bi ci suba CNC validé nako mais nak dégg guñu daan yi nga xamante ni war nañ ko daan ndax nak mënul ñak amna daan yo xamne mom ala kulli alin la mënul ñak il faut gaay ñam mom xawma nak nan lay démé mais en tout cas recours bi dal CNC valide nako pour le moment waa way mën nañu sibile feetu sen bes wa caaro itam ñu ngi leen di béggé ah sérieusement di leen féliciter ah ni ngeen andé ak sen rak sen ber sen sampio sen danan, boni nii leen ko ah wax dëgg fa yalla fétu ngeen ko sen victoire xam nga nii la lamb nii la lépp senegal la mu ngi nii rek rek jox arbitre jox na dem ndam mu ñibbi caaro yi Sa Thiès Sénégal la fa ndam li Senegal la fa naan du fi jógu ah tey Anamu, Sa Thiès bi na recours ah ñu jox rek rek ndam li ñu jox Sa Thiès ndam li ana ndam li fan la jëm dafa fanaani Guinée wala kaasam wala wala wala wala Fuuta astafurlaa ndax Fuuta ci Senegal. la wala Côte d'Ivoire fii lay fanaan ci Sénégal ah fii ak semaine ñëpp fàtte ko di xoolaat leneen waaw commentaire yi nag laa ngeen wax ma Sa fan la jëm rëg-rëg itam fan la jëm encore ndax ba tey rëg-rëg nee na gaal bi mu ngi géejawaay digganteem ak la dëgër ndax day taxaw wala digganteem ak bala Gaye de wala digganteem ak Ama Baldé yàllaa xam yéen yéen lañuy xaar ci reporter ci ci commentaire yi ah ngeen wax ñu ko Sa moom Euh, ñaari combat laa ko gisal pour le moment benn bi magam moo koy xaw a bari foofu tuuti digganteem ak Eumeu Sène ndax bala dafa war a bëre ak Eumeu fii ak fin de saison euh, pour le moment ah Bombardier waxoon na ne moom buy doxe bant itam dina bëre ak Sa kon yoon la mu bëre ak Sa Thiès ah suñu grand boobu Bombardier mun nga may Sa Thiès rawaas en tout cas mu ngi noonu ñu ngi bëggee ñëpp ah fans Sa yi ñu ngi leen di féliciter fan fan su Reug Reug yi itam ñu ngi leen di encouragé ne leen nii la lam jarul xiiroo jarul ŋaayoo ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay incha allahu suul rabi suba dinañ ko gën a yaatal gën a waxtaan ci ak yéen bu soobee yàlla defal leen émission directe boo xamante nii da ngeen di dugg ngeen woote wax seen xalaat incha allah aca ñu ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est meilleur Ngoy TV c'est meilleur leen di ziar dina ñaanal jàmm te di ko saaku si yéen.